ci euh, gestion Covid bi maanaam euh, ñi nga xam ne euh, gouvernement bi daleen a jël ngir ñu mën a expliquer askanu Sénégal Covid bi nu mu demee yooyu noonu ak amélioration yi nga xam ne daf cee amoon moom nag docteur. Abdoulaye Bousso dañ ko remplacé woon ak ki nga xam ne moom mooy Alioune Badara li ginnaaw loolu nag gis nañ mu daal di génn daal di def ay révélation yoo xam ne révélation de taille la ci scandale bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci wàllu Covid ginnaaw ba ñu waxee ci wàllu euh, fonds force Covid 19 mooy ci wàllu xaalis beeg li moom nag dafa ñëw que ne. am na xaalis boo xam ne jëloon nañ ko jënd ci ay pyjama te ku ne xam ne ca boobi ne jamono soxla woon nañ leneen moom sax nee na bam mm-hmm. bañ ko waxee li ni mel daf ne xam naa peut-être ñoom ñuy sol la pour mu aar leen yooyu mais ba mu gisee pyjama ñu ne ko pour boole nalaw la yooyu noonu mu nekk daal mbir moo xam ne moom jàpp ne ni loolu noonu amu fa woon a place mu nekk te ba tey ma nga ci magasin yi ah mm-hmm. kenn euh, wu kenn mm-hmm. jëfandikoo ko mu doon xaalis boo xam ni jël nañ ko fa maanaam pour ma commencer ci dee benn tënk mu ne rek man nguuru président Macky Sall xam nga bu ñu wàccee ñan laa yërëm la justice ñi ngeen ñi ngeen war a dem àtte ji. Mm-hmm. parce que y a de choses yoo xam ni li ci nekk ci ay lënt lënt. dafa bari tellement que. Mm-hmm. ña ko war a lijjanti man ñooñu laa yërëm. parce que boo bu maanaam. Mm-hmm. day mais dafa mel ne tulleeg Mali rek bu kii tullee kii ndulli. xamuñu ko ji defeeti noonu. <laughs> non effectivement parce que. Euh, Covid 19 bi. ku ne xam na ni euh, ba ci rapport Cour des comptes yi defee gé ba rapport Cour des comptes yi génnee. Mhm. coow li bari na lool lool lool lool. muy gestion nébuleuse boo xamante ni si nii. Mhm. Euh, yenn ci ay ministères. Mhm. doon nañ ko caxat caxatee xaalisu askan bi tey bu ñu demaatee parce que xam nga moom lii nii bu ñu ko déggee. foo xam ne ay ay pot de fleur rek. ay lu kenn xamul lu kenn mënul expliquer. ñu koy jël di ko jënd ci xaalis goo xamante ni si nii. dafa waroon dem ci mhm. askan bi boobee jamono mhm. euh, tey bu ñu ñu waxee naan jënd nañ ci ay kenn xamul yére yi lu mu doon kenn xamul euh, lu muy lu muy en ban rapport la am ak euh, Covid 19 bi. Mhm. Euh, parce que bu fekkente ni effectivement dafa nekkoon euh, maanaam. Mhm. yëre yoo xam ni médecins yi dañ koy sol pour di mën a protéger wu. là on mhm. peut comprendre mais yëre yoo xam ni ba tey ñoom fañ ko stocké ñoo ngi ko fay stocké c'est-à-dire. xam nga yenn yi man dama yaakaar ni man ak cuune la ak télé. xam parce que jënd loo xam ni en fait. amul la njariñ dëgg la mais pour man loolu même bu fekkee ne da luubal xaalis sax mais tamit mais doo ko dem di jënd l la amul xamante ni si nii amulul kenn njariñ amul amul benn rendement nga jël ko. Mhm. stocké ko euh, fa nga koy stocké ba tey ma nga fa ma nga fa toog kenn utiliser wu ko en fait vraiment. Mhm. Euh, man loolu da damay xool di xalaat euh, ma ni ki nga xam ni moom moo def lii nii en lan la ci jublu woon dafa xamul certes. Mhm. dafa xamul soit dafa xamul. voilà Euh, mu am yeneen i yeneen i mbir yoo xam ne làqu na ci yoo xam ne xëy na ba tey xam moo yoroon marché bi aussi loolu sénégalais bëgg xam mm-hmm. en fait euh, parce que xam nga moom maanaam wàllu Covid bi moom euh, mm-hmm. parce que ci lu jëm ci wàllu paj mi ministère de la santé ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy responsable yi en kon bu à l'époque moom Abdoulaye Diouf Sarr ba fa nekkoon mm-hmm. Marie Khemesse Ngom bii sax ma nga woon ci ci ci ca biir kon jàpp naa que ni vraiment xaalisu Covid 19 bi moom. xam naa ni àgg na Sénégalais yi ci seen bakkan parce que nag li tax mu am ampleur bi mooy que ni. ci moment yi ñu ko defee ak moment yi ñu ko luubalee. moom moo moom moo moom moo doy waar. ci Covid 19 bi nga xam ni nit yëpp dañoo tiitoon jaax am na ñoo xam ni. jël seen xaalis tëju nañ ci seen i kër ay fan yoo xam ni li ñuy lekk dañ koy taaba taaba. dañuy buñ toggee añ ba moytul ci la ñuy tàngal reer. di dund lu méttee métti. Mm-hmm. nga teg nga jam leen paaka ci digg ginnaaw amee loolu en fait maanaam euh, góom la boo xam ne Sénégal yi duñu ko mës a fàtte. Mm-hmm. Euh, ci seen àdduna. Mm-hmm. Euh, moo tax à chaque fois nga gis ni que ni sénégal yi. dañuy am lu leen métti trop bu ñu tuddee lu jëm ci wàllu Covid 19 bi. te ba tey jii amul benn. clarification boo xamante ni si nii les autorités compétentes ñoom euh, indi nañ ko ci mbir yi pour que sénégalais yi au moins seen xol yi xaw a euh, féex tuuti ñu am ci lu ñu jàpp mais ba tey dañu naan ay daas fii génnal fii te amul lenn lu concret lu précise doo xamante ni si nii euh, amagul nañ ko ci mbir mi c'est vraiment dommage ak ak li nga xam ne moom mooy fonds force covid 19 li nga xam ne cour des comptes boole na kon moo lay wan ne bëri na scandale yoo xam ne mën nañ ko lim ci covid xam nga xam nga maanaam mille milliards yi ci boppam mhm. moom man man gëm naa ni xam naa li ci dem ci askan parce que ba ñu ci defee ay jënd ay macaroni xam nga c'est non c'est extrêmement grave. Europe ceeb Europe ñoom bu ñu lay dimbali xam nga lu def. Mhm. maam bu ñu recensé nit ñi. Mhm. ñoom dañ lay envoyé maam sa xaalis dañ la koy envoyé par SMS. mais lan moo tax man mënu mën a comprendre. Mhm. mais imaginal yow. tët li tax mu gënoon yomb mooy. bu fekkante ni chef de famille bu ne. dañu jëloon sa numéro téléphone. voilà yónnee la déjà li ñuy li ñuy économiser mooy bari. doo jë doo luyee ay oto. li ñu luyee ci oto. bu doo jënd gasoil doo ci yàq gasoil doo liyee ay école mhm. doo fay ay nit pour que ñuy dem di distribuer mhm. doo ci perte temps maanaam lii man man vraiment loolu ba mu duggee rek ñu ni ñoom dañuy jënd ay ceeb ak ay macaroni ay petits pois pour yóbbu pour ñoom ñoo ko jëlee seen bopp ci la ca xel teyoon en tout cas pour ñenn ñi nga xam ne ay boroomi xel lañ bokk. Mm-hmm. parce que li gënoon a yomb mooy ñu envoyé nit ñi seen xaalis par SMS. kenn ku nekk jot ci su boobaa. dinañ ko mën a vérifier a vérifier. dina mm-hmm. dina yomb a justifier. mais lii nii nga xam ne ñoom ñooy dem ca marché ba. Mm-hmm. mais kilo macaroni bu dee jar <laughs> cent cinquante. bu la nekkee jëndee ko six cent mbaa sept cent. lu ci waay man moo tax. kon ñoom euh, en fait méthode bi nga xam ne ñoom moom la ñu dem mm-hmm. rangale stocké ay saaku ceeb ay ay ay ay ay bidon diwlin fii nii di photo di wane. Mm-hmm. amul woon ah, benn benn sens méthode bi aussi méthode bi aussi Kébé bul fàtte ne xaaj ak seet lañ ci bëggoon def ndax gis nañ ne que ñëpp amuñu. xa gis nga mi ngi noonu te gaa ay ñi nga xamante ni si nii ay kilifa lañu. Mhm. di si jot ay bon yoo xamante ni si nii am na ñoom dañuy jot jotaat. rapport bi gé lim feeñal moom moo bari ñoom dañuy jot. jotaat jotaat jotaat ay jot te li ñuy jot. effectivement te ñi mm. nga xam ne ñoom ñoo yelloo ñoom ñoo non Sénégal du réew quoi ñoom ñoo mbir mi dëgg-dëgg wallaahi di togg ay sombi alors togg sombi du ñu am sax suukar bu ñu ko suukare mm-hmm. parce que boobu biti gi kenn ku ci nekk ragal nga tëju nga semence mën na jeex nga dem ragal ak génn jëndi wala ainsi de suite wala nga toog amoo sax xaalis boo xam ne mën nga ko jëndee euh, suukar parce que yàlla xam na nii xam nga mm-hmm. ñoom xam nga Ndakaaru dafa neex am na mm-hmm. ñoo xam ni chaque jour maanaam li dépassé woo suba tey tey jii maam tey lañ ko war a dem liggéenti yi mhm. effectivement am na ñoo xam ne bu ñu xëyee seen jabar yi mhm. ña nga toog seen kër yi soit ñu sumb ay foot wala ñuy bale xaar seen jëkkër liggéenti lam leen war a jox dépense pour que ñu dem wala soit dañuy dem jël sa bitig ba moom su liggéeyee dikk jox leen ñu dem ñu ñu dem fay mhm. am na si ñoo xam ne noonu la ñuy dundee mais kooku mhm. boo ko tëjee ci këram sa waay mais lool nga ko mais nga toj ko ci këram ba pare ni ko naa la jox ko ko mënul àgg ci ba mu ko jëfandikoo utiliser ko ci anam yi nga xam ne noonu la ko euh, a a jëfee euh, vraiment c'est doguma la sa bala mu ñëw ci Fatima dañu gisee suñu gouvernement bi à chaque fois buñ tëlee ci benn mbir euh, ceeb la ñuy dem neexale ko askan wi ba boo xoolee ci wàllu mën na bi mën na day am ñu war ko lijjanti ko lijjanti mais ceeb lañu jël ñu jox ko askan xam nga loolu mooy seen métode bi nga xam ne parce que ñoom jàpp nañu ni à chaque fois ceeb ceeb nga moo tax suñu <laughs> politiciens ñu war ñu ñu war ñu respecté mhm. ñoom jàpp nañu ni askan bi ñoom xam nga la mooy seen arrangement voilà askan bi di xiif hmm. maanaam méthode yooyu jamonoy Senghor nga xam ni heure bu heure bu joxe saaku ceeb heure bu heure bu heure bu élection daan jub si mhm. nga gis ñu commencé séddale ay engrais joxe ay ñetti ci yi ceeb bu ko defee ñi ni yee waa ñaa ngi nii alors que boobu xamuñu woon lu xew ñii nag ñoom ñoom dañ xamul tax ñuy nelaw mooy. Mhm. xam xamuñu ni weesu nañu jamono jooju nga xam ni da ngay xam nga maa ngi seetaan. Euh, Omar Sow bu yëmbal la xamal je pense. Mhm. Euh, bokk ci responsable APR xam nga dafay dafa yore mouvement. Mhm. mu ni dafay def social. mais ñoom xam nga ko li Olof Ndiaye di wax naan ku wax feeñ. nee na léegi waa APR léegi il faut que ñu commencer nag respecter askan yi. benn mooy kon ñoom ndeke mosuñu respecté askan bi mhm. li tax mu ni war nañoo respecté askan bi mooy uh-huh. léegi jub nañ ay élection te askan boobu moom moo leen war a fal moom war mhm. soob mooy wax de <laughs> maa ko seetaan maa ko déglu kenn tiliwu ma ko mu ni askan boobu moo leen war a fal kon mhm. léegi nañu commencé respecté askan boobu te wàcc nag ci terrain bi bàyyi bureau yi parce que euh, bureau yi mayewul dara. Mm-hmm. ñu ñëw ci askan bi di leen mm-hmm. respecté. Mm-hmm. kon ça veut dire que ñoom mosuñu askan bi. mooy léegi loolu bi nga ci jàngee de un mooy. politicien bala moo mën a respecté askan. Ah, wala mu commencé def social di ko firme nit ñi gis ko. ay élection dafa jub si ba mu soxla askan bi. mais bu xësee falu ñi nga commencé tëju seen ay bureau dootuñu jënti kenn loolu nag askan bi ñoo ci war a yeewu. beneen beneen bi mooy. beneen bi mu ni. Mhm. Euh, yow njiiti réew mi da nga xipp sa bët ak xool ñenn ñi nga xam ni heure bu dikkee ci siège ba dañuy ñëw jël si li ñu war a jël rek dem. dem seen yoon kon pàccoo am na foofu noonu. Ah. lu ñuy pàccoo dañuy ñëw jël si dem. Mhm. Euh, mu <laughs> c'est extrêmement grave. non <laughs> ku wax feeñ. mu ni dañuy ñëw jël si dem. Mhm. le fait que ñu ñëw jël si li ñu jël si dem rek kon pàccoo am na foofu. lu ñuy séddale. xaalisu askan bi la rek. ah beneen bi ci des mooy moom mm-hmm. euh, Omar Sow. Mm-hmm. parce que nag li Olof Ndiaye di wax naan ku wax feeñ li ma wax sànq. Euh, moom moo leen moom moo leen dal. Mm-hmm. Euh, ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko <laughs> nee na nag. boo xoolee gars yi moom kenn ku nekk sa sa sa intérêt bopp nga nga kii ah lijjantiwuma kenn neen dootuñu nangu ñuy jël kenn voilà voilà il faut que nag ñoom ñu leen di gestu di leen sedd ci mbir yi. ñoom aussi dañ leen war a sedd ñuy pàccu euh, ci li nga xamante ne si nii maanaam ñu ngi koy séddale. en fait li ñuy séddale dañ ci war a jot seen wàll ba mu mat sëkk kon waruñoo fàtte waa askanu yëmbal sidd. Euh, te waruñu waruñu di di di am na tamit kër massage foofu noonu mais te nga foofu sa <laughs> baaraam. effectivement mu doon mu doon mu doon mu euh, doon loo xamante kat yoo xamante man bi ma ko seetaanee man en fait am sa kersa da ngay ruus ci suñu politiciens yi nga xam ne ñoom jàpp nañu ne askan bi ñoom dañu leen a jàpp ay ginaar yoo xam ni heure bu ñu leen jëndee dañ leen di bàyyi ñu bëri bu ñu leen soxlaa jël ay fépp dugub suyu suyal leen ko ñu ñëw bu ñu paree ci ñoom dem seen yoon mm-hmm. loolu nag askan bi moo ko war a bañ mm-hmm. moo ko war a euh, jëlee fii ba mu set wecc te ñoom ñu xam ni ay nit lañ ci askan bi lañ jógee kon ñoom ñu respecté askan bi muy neex ak muy naqari mi ngi noonu nag mu nekk kàddu yu am solo yi nga xam ne uh, daal di nga koy kategal foofu sa baaraam ma daal di ñëwaat ci yow. Mm-hmm. Uh, Fatima ñu gis uh, docteur Bousso kàddu yi nga xam ne ak révélation yi nga xam ne daal dina koy def ci Covid 19. Mm-hmm. kon mooy firndeel que ne ñun ci scandale yi nga xam ne Covid am na ci biir noonu. mën mm-hmm. naa ne yii nii sax ñuy révélé moo ci gën a ndaw. d' après li nga xam ne gis nañ ko. bien sûr d' après li ñu gis defe naa ne. Euh, mën nañ jàpp ne que révélation yi moom à chaque fois euh, boo yeewoo dangay gis ne mhm. euh, am na benn révélation boo xam ne def nañ ko lii firndeel ne que maanaam li li nëbbu mhm. moo ëpp foofu lu feeñ ci ci njuuma yi nga xam ne mhm. xëy na ñi nga xam ne ñu ngi leen jiital ñu ngi koy def ndax mënoo ne covid 19 ñëw na fii ci biir réew mi mu nekk feebar boo xam ne sonaloon na képp koo xam ne yaa ngi yeewu fii mu nekk feebar boo xam ne aussi handicapé woon na ñëpp Euh, ndax ñu ci ëpp xam nañ ne que foofu la ñu jaaree perte li nga xam ne moom mooy seen ay liggéey mu mhm. metti woon lool nag ci père de famille euh, kon defe naa ne buñ jëloon mhm. xaalis yëkkati ko euh, bu ñu demee bay jënd nañ ko dugal ci loo xam ne après mhm. dina servir askan wi wala après ñoom médecins yi nga xam ne ñoom ñoo doon fajaate dina leen dimbale wala dina nekk jumtukaay boo xam ne dina leen arranger pour ñu gën a mën a nekk à l'aise mais quant jël xaalis Euh, jëndee ko li nga xam ne moom mooy ay pyjama effectivement dinañ ko stocké foofu parce que soxlawuñ ko lan la lan la ay médecin wala ban ban ban ban ban jumtukaay boo xam ne maanaam war nañ ko mën a soxla euh, jëm ci li nga xam ne moom mooy pyjama mu jëm ci li nga xam ne moom mooy hôpital euh, kon day nekk loo xam ne ndayaan Euh, bu ñu jógee ci li nga xam ne moom mooy fonds force Covid 19 bi. Mhm. Euh, ginnaaw ba ñu jëlee li nga xam ne moom mooy milliards yi dem jëndee ko ay matériel mhm. euh, waroon ko yóbbu ci fi nga xam ne moom mooy hôpitaux yi. pour askan wi mën a faju normalement ñu jël mhm. matériel yooyu yóbbu ko ci marché ba di ko fa jaay defe naa ne nit ñi foog ne fa la ñuy yem. Euh, ñu mhm. génnee ne carrément dañuy jënd li nga xam ne moom mooy ay ceeb ak yeneen ak yeneen mhm. euh, daal di koy distribuer askan wi ndax ku ne xam ne na xëy na am na ci mhm. ñenn ñoo xam ne lu ñu lekkoon da leen di të ndax gis nañ ne que famille yu bëri wala père de yu bëri bu ñu xëyul dem liggéey suba pour ñu dépense day daal di metti euh, kon man dama naan Sénégal mën nañ jàpp ne que ci li ñu échec Mhm. moo ëpp bu baax a baax ci projet yi nga xam ne dañ ciy réussir bu dee am na yoo xam ne réussir nañ ko ndax mënoo ne feebar dafa ñëw sa biir dëkk gane si la mhm. nga war a mën a teg ay plan yoo xam ne dina fexe euh, sa askan mën a nekk à au moment wu nga war a mën a def loolu nga jël xaalis boobu nga leen war a jox nga jël xaalis bi di xool fan nga koy luubalee mhm. euh, di jënd ay ceeb ak ay diwlin a geneen a geneen di di seppi di xool ñan nga koy jox te buñ naan buñ naan covid 19 ba mu fi duggee xoolul ne que kii fii la bokk mais mhm. feebar bi ñëpp la laal kon bu séddale amee rek dañu war a mën a bàyyi li nga xam ne moom mooy ay parparloo mhm. euh, xam ne kat lii askan bi yëpp ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko moom kon donc nañ ko jox mais gis nañ ne que euh, séddale ba jaarul yoon ñuy jooy loolu pareeguñu ñu jël tamit xaalis bu bari ci askan bi daal di koy jëndee ay intelligemment ñu ngi na la stocké ko. Mhm. Euh, kon day nekk loo xam ne rek dinañu mhm. yàgg daal. te si boobu la jamono président dafa génn que de l'heure est mhm. maanaam euh, a ku nekk tëdd sa kër. tëdd naka te alors que ñoom euh, ca benn côté ba ña nga jot xaalis chaque jour ca beneen côté ba jël nañ xaalisu Covid bi mu jëndee ko ay. effectivement daal di koy stocké. bien sûr xam nga président Macky Sall instant boobu ba mu ne l'heure est effectivement. Euh, tolloon nañ ci jamono joo xam ne instant boobu ku ne euh, wala képp koo xam ne yaa yeewoo ci dëkk bi mhm. tiitoon nga mhm. mais bu ñu demee ba maanaam moom euh, président mu génnaat ne carrément nañu nañu nañu jéem a dund mhm. ak li nga xam ne moom mooy covid bi kon déjà solution amu ci woon mais li tax wala li ñu waroon a jiital mooy maanaam ca séddale ba wala lañ doon def ñu jaarale ko ci yoon mhm. ndax wax naa ko sàng am na instant boo xam ne kenn mënul woon génn sa kër kenn mënul woon dem liggéey ñoom li nekkoon seen rôle mooy maanaam ñu taxaw askan wi ci jamono jooju ndax mhm. comme ni ma ko waxee am ñu ci ëpp ñoo xam ne bu ñu xëyul liggéey suba incha allah bu ñu xëyee ñu am li nga xam ne moom la ñu joxe euh, mhm. dépense mais quant à yëkkati ay milliards euh, daal di koy jox ñi nga xam ne ñoom ñoo yor euh, wàllu woowu ñu ciy def lu leen neex jël xaalis ba luubal waxatuñu loolu révélation ne carrément euh, dañoo jël euh, yenn ci xaalis bi daal di koy jëndee li nga xam ne moom mooy ay pyjama euh, kon donc ndeyaa foofu dama naan échec am na mhm. non seulement échec am na waaye tamit def lu la neex am na ñàkk yërmaane tamit am na ndax nag mm-hmm. nit ki loo mën a luubal luubal wala loo ñàkk yërmande yërmande ci sa askan ba mm-hmm. feebar ñëw gane si leen boo xam ne mënoo ci dara euh, li nga mën mooy maanaam taxaw leen man defe naa ne instant boobu waroon nga am dara sax loo xam ne leer na ne li xaalis bi man maa ko moomal mm-hmm. sama bopp nga daal di koy jël dolli ko si ne askan wi soxla nañ ko euh, mais quant à yaa ma neex ñii nga jox leen ñii du leen ñii doo leen jox euh, kon day nekk loo xam ne lu ñu war a mën a xoolaat la te du du yomb jóge fii ci suñu biir réew ndax gis ne que à fois suñu waay politique ci logique boobu la ñuy demee Mm-hmm. dañuy bëgg lépp lu xew ñu daal di koy politiser. Mm-hmm. ku ne xam na ne ceeb bi ak diwlin yeeg yeneen ak yeneen bu fekkoon politiser wuñ ko ñëpp dinañ ci jot. mais imaginel ñëpp jotuñu ci bu ñu demee ba maanaam ñi jotoon sax di jotaat kon dénk kon donc séddale ba jaarul yoon mm-hmm. euh, tant que ñu lépp lu xew ñu daal di koy politiser wala tant que bàyyiwuñu lépp lu xew ñu jéem a fexe pro jéem a fexe rek profito dugal li nga xam ne moom mooy seen intérêt personnel pour réew mi dox loolu moom yenn ni dama koy euh, joxoñ baaraam tuuma chef de quartier yi parce que am na ñoo xam ne booy fa lañ ko yóbbu woon ñoom ñooy joxe di joxaat ko leen neex ñoom ñooy tànn sax laay mën a wax bien sûr xam nga xam nga xam nga lépp loo xam ne da nga koy mm-hmm. teg te amul surveillance voilà Euh, defe naa ni nit ko bu gorewul rek fa mbir ya war a jaar du ko du fa jaar mhm. ndax instant boobu metti woon na ci ñëpp mais boo jàppee ne man chef de quartier bi nii mu méttee ci man noonu la méttee ci ñi nga xam ne ñu ne ñoo ne ci quartier bi ndayaa euh, boo jëlee sa wàll wala booy séddale doo ci am xaj ak seet da ngay mhm. daal di séddale mais li ñuy sonal mooy maanaam parfois du ñu demee ak suñu ngor mhm. du ñu demee aussi ak li nga xam ne moom mooy dignité waaye aussi du ñu demee ak li nga xam ne moom mooy suñu suñu suñu suñu ngor euh, dañuy jiital ne que man sama intérêt na am même bu keneen amul garaaw te ku ne xam na ne feebar bi ba muy laal euh, bàyyiwul kii bàyyi kële mais ñëpp la laal kon mhm. donc euh, bépp plan boo xam ne teg nañ ko dañ ko waroon jaarale ci yoon mais nag ci suuf mënul jaar ci yoon te fa muy jóge ca kaw jaarul yoon mhm. ndax déjà luubal gi fa la tàmbalee ñoom ñi taxawoon waroon jël mbir yi teg ko ci yoon teg ay surveillance ku ci ne war a jot ñu ñu jox la mhm. euh, ñoom ñoo njëkk a ñoom ñoo gën a tànn ne ñii la ñuy jox wala du ñu jox ñi te alors que feebar bi ñëpp la ñëpp la lépp la laaloon kon defe naa ne surveillance bu amul ci kaw kaw du am ci suuf tant que ñu ngi jël méthode bi wala ñu ngi dox ci logique bi mhm. euh, ndaya pour Sénégal jëm ci kanam wala mu avancer dina metti ndax mhm. nag lu metti metti dañu leen di jiital Euh, jiital leen pour maanaam lépp loo xam ne metti nañu wala ci bépp situation bu mu nekk ñun ñu ñëw ñoom ñu ñëw taxawuñu mhm. mais dañu xool ne que à chaque fois ci situation boobu askan wi di nekk dañ ciy profito mhm. pour maanaam dugal ci bu baax a baax li nga xam ne moom mooy politique di xalaat suba euh, naa jox ñii ndax xëy na man chaque jour ñii laay gis alors que euh, dafa am loo xam ne effectivement ñi nga farandool loolu mhm. yéen la mais am na ci ay situation yoo xam ne amul kii faral wala kële mais situation pour askan wi yëpp la situation la aussi pour maanaam képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Sénégal mais tant que ñu ngi dem ci logique bi di joxe waxuma la révélation mais mhm. à chaque fois bu ñu xëyee dinañ dégg lu bees euh, te du nekk loo xam ne luy neex askan wi la ndax voilà du loo xam ne euh, luy neex euh, askan wi la ba léegi ci mbir mi nga xam ne wala ci révélation bi nga xam ne docteur Bousso docteur Abdoulaye Bousso daal dina ko jox moom mi nga xam ne dafa nekkoon ci biir gestion Covid bi ndax njiital gouvernement du Sénégal ci ñu nga xam ne jël na leen ngir ñu mën a saytu mbir yi waaye tamit surtout expliquer askan wi amélioration wu euh, feebar bi moom ci la bokkoon juste après lañ ko daal di remplacer ak ki nga xam ne moom mooy Alioune Badara euh, lii waaye naka la nga xam ne kii bi sànq yaa ngi koy wax. Euh, ci wàllu euh, luubal beek li ni mel na ci wàllu détournement ak scandale yi ku ne xam na ni 45 milliards d'armement bi tamit noonu lañ ko def ñu ñëwaat ci wàllu euh, Covid bi tamit def ko nii kon moo leen wan ne ci wàllu sobriété bi nga xam ne président Macky Sall mi ngi doon ko wax que ne lépp dina ko teg ci yoon ba luubal du fa am détournement du fa am mais ci nguuram ci régime am lañ gis ne détournement yu bëri ñu ngi koy lim rawatina ci wàllu santé bi. waaw moo ñu diggoon Euh, la patrie avant le parti. effectivement loolu la ñu doon euh, wax. Mhm. mais gis nañu ko bi mu dikkee la famille sax la def d'abord. Mhm. <laughs> après teg ci le parti. Mhm. par bi mu compal ko. lii moo am. la ah, noonu lañ parce que Alioune Sall moom ba mu. parce que 600000 milliards na nag moom 6000 milliards. 6000 milliards la. 6000 <laughs> milliards nag moom fa dëgg neex yàlla. ah bu ñu la tuddee ci scandale bu toll noonu moo tax. voilà c' est extrême moo xool du ma fal sama mbokk. ay Bibi Baldé ay Mansour Faye mm-hmm. maanaam fan mu yem yépp képp koo xam ni tax nga ci moom te. Mm-hmm. nangu léegi nag maanaam loolu dafa dafa am solo ñu texale képp koo xam ni mm-hmm. tax nga ci moom te nangoo ñëw maanaam eh, doy dal sa bopp parce am na ci ñoo xamante ni si nii lu metti métti nañ des seen ngor dëgg la waaw ah, yow moom fi mu nii yaa ngi gundaandaat yaa ngi ndaat saay dëgg la en attendant <laughs> waaw loolu def ci am solo mm-hmm. parce que moom lu askan nag mënoo ci dëkk di ci gundaandaat ak di ci di ci ndaat saay mm-hmm. euh, te xam ñoom xam nañu ni seen seen euh, gouver li ñuy seen gouvernement seen mm-hmm. mu daanu leen dese motatul at weer képp leen des ñoom xam nañ ko ak malgré effort yi ñuy jéem a nekk di def nii yëpp euh, ne nii ñoom xam nañu ne walla kulli xaal moom incha allah rabi fii ak ñu mhm. dinañu wàcc joxe nguur gi. loolu moom mooy dégg. Mhm. Euh, lycée <laughs> maa ngi dégg benn audio boo xam ni. Mhm. Euh, ab kilifa la nee nañu sax ab euh, nekkoon na fi ministre. <laughs> primo votant yi nga xam ne ñu ngi jóg di di di voté ne ñoom dañu tiit. maanaam ñoom ci boppam. dañu tiit ca pire maanaam ay responsable fi mu ne nii ngi vocalante ci seen biir naan. Euh, primo votant yi jóg nañu bind ji ak doole. waaw effectivement boo xoolee sant te amul kenn koo xamante ni si ni ci ñoom te loolu mooy dëgg. Mhm. ànd nga ci ànd nga waa wala ak waa benn bokk yaakaar wala nga ànd ak waa APR. amul mhm. primo votant yi yëpp yi jóg ji bindu ji. cent pour cent quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi yëpp dañu contre le régime euh, bi nekk ci ci ci ci nguur gi jamono jii. Mhm. le régime actuel. kon ñoom. xam nañu loolu malgré que. li si euh, révision yi 6 mois la waroon doon ñu def ko. un mois mois gis nañu ndaw ñi détermination bi ñu am ci dem. bindu ji ngir mën a voter. déjà loolu fi mu ne nii jur na panique bu bëree bëri Zahra Iyane Thiam xam nga. Euh, bu bu demee ba naan euh, non c'est extrêmement grave déjà yéen gouvernement bi yéen waroon a communiquer. inciter ndi ndaw ñi les mm. primo-votants à ce que ñu ne bii defatu leen ko mm-hmm. mais ñu naan xam nga lan ñi ñuy changer lieu de vote il menace xam nga lan porter plainte xam pour que ñu annuler loolu xam nga ñii nii mm-hmm. ça veut dire que ñoom maanaam bëgguñu jàmm en fait mm-hmm. am na ku ma dégg mu naan yéen a ngi toog mais opposition sàcc nañ xam nga moom xam naa ne ay kii xam nga yéen sax maanaa au fait wujjee baax na mais yow sa wujj ak lu mu métti métti dafa am fu muy yem. gis nga soo Sonko ñoom ñi ngi opposé ak moom ñoom nëbbuñu ko nu ñu ko mën a def bare ko politiquement dañ koy def. mais am na ci loo xam ne dafa ñaaw dafa am foo xam ne maanaam fa yaa des limites yoo xam ne waruñu ko waruñu ko waruñu ko romb quand même mais ñii nii ñoom instant bi dara dara teew ci leen lu ñu mën a def. Mm-hmm. pour éliminer Ousmane Sonko instant bi dañu koy def. Ah. te amul dara luñ ci nëbb amul dara luñ ciy jomb. te loolu c'est extrêmement grave c'est extrêmement dangereux. xam nga koo xam ne mm-hmm. yow boobu la ko topp di ko sës ci miir bi te loolu moom moom li ngi mi ngi def. Mm-hmm. li nga xam ni en tout cas Ousmane Sonko moo nekk nit koo xam ni. xam nga wax ji nag bari na. dëgg la mais koo xam ni yow ci wàllu yoon. ah man nit ku mat nag matul. mais doo doo ni lii nga ko mën a jamee ci wàllu yoon. ci wàllu yorin. doone lii nga ko ci mën a jame mhm. ak fi mu jaar yëpp mhm. kon kooku noonu wax fa dëgg neex yàlla mhm. euh, même boo koy bëgg a euh, di di opposé ak moom itam am na ci yoo ni fa nga war a mën a yem ak moom mais bu fekkee ne ni li gone naan fàtt na fépp yow tamit nga bëgg a def kur ko rek ni ci dina am fu ma ko ah, jaar kooku mais mais nag euh, mais que d'ailleurs n'oublie ne langum politique la ku nekk da ngay mën a xool fan nga mën a daane sa morom mais mais mais loolu laa la wax mais am na yoo xam ne kenn yaree pari ne kenn waru ko franchir mhm, ah, même foofu yëpp ci yam am na ci yoo xam ne kenn waru fa jàll ak nit ki mhm. en tout cas day Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar fi Abdoulaye Wade jaar fi méttoon mhm. nañ méttoon nañ torop ñu daan wu kujjee mais am na ci yenn yoo xam ne ñoom jomboon nañu mosoon nañu fa àgg ak par rapport ak ñii tey fi ñu àgg ak Ousmane Sonko. c'est mhm. extrêmement grave kon loolu euh, dafa am solo. Mhm. Euh, nga ñu koy ñu koy ñu koy préciser kon nga gis ne ñoom li ñuy def yëpp terewul ñoom ñi ngi def li nga xam ne moom la leen yoon sant. dëgg la déjà primo-votants yi. Mhm. mais ko koo xamante ni si nii kay yow li nga waroon def am na ñu koy def mais nga bàyyi ñu ñu bindu ci jàmm mais yaa ngay dikk di menacer ak ji def yi kenn xamul ça veut dire que ñii nii ñoom. xam naa ne mbaaw moom mbaaw moom li ma fay dégg fan yi euh, bëri na lool. dañu bañ commencé euh, maam dañu panique dañu tiit xam nañu ni. Mm. parce que ku def ñetti sondage heure boo defee sondage. Mm-hmm. sondage bi génn ñu wan ni la kii nii opposant tel moo lay gagné du la sax yóbbu deuxième tour da lay duma ci euh, dès le mm-hmm. premier tour kooku mm-hmm. nga gisaat xam nga ñoom instant bi ndeysaan fi ñu wuteeg opposition bi mooy. ñoom ñu ngi mobiliser ay ay pour gars yi dix deux millions de cartes de membres pour soutenir. président. ñee nag ñoom ñu ngi booma mobiliser lu toll ci 2 millions. Euh, de ay de primo votants yoo xam ne dañu war a dem bindu ji ci liste xam nga mm-hmm. ñooñu kon euh, bokkuñu mën nga ni bokkuñu ay ambition politique bu ñu demee nag ñoom ba seen bilan fi mu ne ni ñoom xam nañu ne mënatuñu ci convaincre kenn xëy na peut-être. Mm-hmm. mais est nekku seen carte yi mooy moom mooy moom mooy euh, moom mooy ndiroog seen bilan bu def parce que ku ne xam ne ne carte boo ko jëndee kon moo lay won ne bilan bi mu def gënal na la aussi. yow 2 millions de cartes yow mën nga jënd 1 million de cartes yi. Mhm. waaw 2 millions de jaay 2 millions de cartes dafa tekki ni 2 millions de sénégalais jënd nañ carte. 2 millions de cartes yi kenn ci ñoom mën na jënd 1 million. kenn ki jënd 500000 mhm. cartes. kon loolu ay tappale la ak ay caaxaan. du mhm. lu xel mën a nangu. te li ci gën a ñaaw mooy ñu koy dëppale ak constitution constitution boo xam ne dafa ñu la. mënatoo bokk yow yow nga ni. Euh, dana mën a bokk su jaayee deux millions de cartes mais c'est extrêmement grave kon. ñoom instant bii nii dañu war a changer seen stratégie. xool naka la ñuy doxale ca du lenn lul mooy. Mhm. ñu xam ni ki ñu yaakaar ni moom moo war a nekk parce que ba tey jii. Mhm. li gën a grave mooy jëm ci ay élections yoo xamante ne si nii xamaguñu exactement yan candidat ñoo war a bokk. président Macky Sall déclaré déclaré gul candidature am. non non Sonko ba tey ñu ngi naan ndax duñu ko éliminer ñu ngi naan du bokk Kani bi ñu ngi naan du bokk. Déthié Fall wóoruñu Idrissa Seck maanaam lii nii c' est c' est la première fois dans l'histoire du Sénégal. ñu ubbi ay liste amaguñ candidat mooy deux ans ci ay élection présidentielle mënaguñoo xam. ban candidat moom moo war a bokk. Mhm. désordre total maanaam lii ruube gënu ko gën a mag. ci vraiment histoire politique bu Sénégal maanaam ñii dañu ruube. dañu ruubee affaire yi dañu ruubee carte yi. mais cela montre que euh, ne Kébé bala montre que euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk au pouvoir ñoom ñoo yor seen cëglu kuy ñoom lay neex euh, ñu wax ñi ñooy bokk ñoom lay neex tamit ñu garder ko ba suspense ba heure bu leen neex aussi. waaw mooy parrainage bi nga xam ne teg nañ ko fi rek. ak di mm-hmm. éliminer ay ay ay di ko jaarale ci justice. Mm-hmm. loolu lay waral rek mooy démocratie bi moom fi mu ne nii Euh, ku yaakaar ni démocratie am na fi yaa ngi nax si bopp parce que dafa nërmeel lu trop trop trop trop euh, te ñoom xam nañu ne démocratie bu Sénégal dafa dellu ginnaaw mhm. euh, moo tax fi mu ne nii instant yi nii ñoom mhm. kenn ku ci nekk lenn ngay xalaat mooy boo bàyyee nguur gi sa ginnaaw ñoom lii rek mooy am na ci ñoo xam ne bàyyi nguur du seen problème ndax xam nga lu mooy seen problème gi sa ginnaaw te bu tànk ko bëgg ñoom tey mhm. am na ñu nekk ci opposition bi yàlla xam na ni. Mhm. bu leen leeroon que nii ak ñenn ci ñoom mën nañ jël nguur gi excepté Ousmane Sonko. Mhm. ñoom ñu ñu yoromal mais leero leero la naññ que ñoom. xamul leen que ni naxuñu ndax danañu mën a mucc ci Ousmane Sonko waaw wala déet mm. mais am na ci ñoo xam ne bu leen leeroon que ni mm. am nañu fare fii ci opposition bi te ñu xam seen bopp bu baax bu leen leeroon ni ñooñ ñooy jot ci nguur gi mm-hmm. lépp mu sedd parce que xam nañu ni mm-hmm. bu ñu leen soxlaa waxtaan affaire moom fi yàgg am rek mooy politique politicien mm-hmm. léegi nag Ousmane Sonko nag ñu wax ko ca dee ca euh, ñu wax ko te dund sax laay wax mooy njuuma li nga xam ni moom ñëw na ni système bi fi nekkoon dañu koy dindi te système boobu nag ah ay la yëwoon dafa bari ay nit yoo xam ni système bi daf leen épinglé. ça mais gisee ak gisee ak euh, idi bi tamit euh, nit ñu ngi koy waxtaanee parce que am na ñenn ñoo xam ne nee nañ euh, gisee bi moo wartan warus nekk. ñi parce que idi waxul Ousmane Sonko tamit waxul. mais nit daal ñi ngi lam-laame gisee bi. xam nga Ousmane Sonko maanaam. Mhm. moo nekk nit koo xam ne xam nga pourtant Idrissa mais Ousmane Sonko mais war na ko mën a gis sama xalaat laa wax. Mhm. du ay gis parce que bokkuñu ay principe. bokkuñu gëm-gëm bokkuñu gis-gis. voilà mais pour man Idrissa Seck sénégalais comme sénégalais war na mën a gis Ousmane Sonko. mais n'oublie pas que ne Idrissa tamit système bi la bokk aussi parce que moom euh, yàgg na politique. mais bu baax. voilà Ousmane Sonko ñaata nit a bokk ci système bi te mu ànd mi ngi ànd ak ñoom jamono ji. maanaam xam nga gisee ak nit tekkiwul ni. Mm. da nga dem di ànd ak moom. maam nit yi loolu lañ xamul xam nga lan moo am problème lan moo am solo. Mm-hmm. gisee boobu noonu lan lañ tënk ñoom ñaar. man awuma ay jafe-jafe gis gisee naag kii de moom Macky Sall sax bu la neexee nañu gisee mais xam nga lan moo am solo bu ñu gisee pare ñoom lan la ñuy teg ci loxo askan bi mhm. pour man loolu moo am mais pas ay diw diw parce que diw nit la dëgg la moom moo moo dem dugg ci système bi def te mhm. lam tey jëf mais mhm. euh, en dehors de ça tey nit la war na mën a gisee euh, kum kum bëgg a giseel ci réew bi mais léegi nag puisque ñoom ñaar ay homme politique la ñu euh, bu ñu gisee po poñ yi ñu tënk ba teg ko ci table ji ci ci ci turu askan bi. Mhm. loolee la nit ñi soxla bu ko defee nag dana ñu xam ndax gise bi waroon na mën a nekk. am na ok pour man foofu la foofu la essentiel bi nekk mais ay gis naa Idrissa Seck parce que Ousmane Sonko yaakaar naa kay nekk vraiment nekkul cuure boo xamante ni si euh, nii li mu traversé. Euh, ci ci ci ci ci ay jafe-jafe ci politique dana mhm. dikk baat si fii nii di xool lenn loo xam ni di sàggan wala di xool euh, lenn loo xam ni dana këpp yàlla parce que gisuma bu dee ci wàllum euh, poids électoral yi. Mhm. Idrissa Seck jamono jii nii gisuma benn poids boo xam ni maanaam tey jii bu Ousmane Sonko demoon ànd ak moom li ko apporté comme gisuma ban intérêt. parce que Idi euh, li mu ànd ak Macky Sall la ko yàqal moo gën politiquement gisuma ban intérêt la Idrissa la Ousmane Sonko a ànd ak Idrissa Seck ci koo xam ne sa bureau de vote sax ci élection yi passé dañ dafa du leen du liy merci beaucoup Kébé <laughs> voilà Fatima ñu daal di euh, ñëw ci yow ci wàllu